kan nag ngay teg sa bopp ana ñaan ngay tudde say taalibe ñu bari wax nañu ni dangay def ay kéemaan defal ma kéemaan ku tedd ki dañu ko jiñ ne mu ngi réeral waa réew mi te mu ngi teg boppam ab buur nit ki buur <laughs> yow mi tedd mi delloo leen ko piraat mbir mi moo ko war a àttee